si suba ba léegi nag euh, audience bi nga xamante ne moom mooy wutale Mame Mbaye ak euh, kii di Ousmane Sonko mi ngi wéy foofu ci tribunalu Ndakaaru waaye boobu ba tey nag àttekat bi euh, mu ngi suspendre audience bi maanaam da koy dagg rek dem di ñëwaat te nag àttekat boo leen ko gisee rek muy dagg. ab audience lu koy waral rek moom mooy euh, dafay am euh, ñu sekk mbir mi tey daal di bañ a déggoo wala boog mu bëgg joxe rek euh, ab pause bëgg nit ñi dem noppaliku te daal di ñëwaat moo tax nag bu ñu sukkandikoo ci ay xibaar yi nga xamante ne ñu ngi ko taataane foofu ci Seneweb bi mooy juróomeelu yoon kii di atekat bi di dagg audience bi ci diggante Mame Mbaye ak kii di Ousmane Sonko ba nga xamante ne nag dagg bu mujj bi dara waralu ko fadul atekat bi di wuyoo ci turu Mouhamed Diop euh, dafa jote ak kii di maître Ousseynou Fall bokk ci avocat yi nga xamante ne ñoom ñoo layal kii di Ousmane Sonko ñoom ñaar nag lu leen jotale moom mooy kii di maître Ousseynou Fall dafa wax ni euh, na gendarme yi nga xamante ne nekk ñoo nekkoon ci salle bi ñu génn ndaxte euh, kenn mënu ràññee seeni xarkanam ñoom dañoo takk eggagul loolu nag la atekat bi dàkk rek wax kii di maître Ousseynou Fall génn génn salle bi maître Ousseynou Fall nag mu daal di lànk ba nga xamante ne kii di àttekat bi nag moom moo mujjee génn rek abal leen jamono ñi nag ñuy waxee ak yéen suspendre nañ audience bi foofu ci tribunalu euh, Ndakaaru euh, te sax euh, kii di Ousmane Sonko ak kii di maître Ciré Clédor Ly nga xamante ne dafa bokk moom itamit ci ñu koy layal ñoom ñaan ñëpp kenn nekkul ci salle d'audience bi ndaxte nee nañ ñoom mënatuñu woon noo yi ndax gaz lacrymogène yi leen doon sànni te ci suba looloo waral nag ñoom ñaar dañu leen lakk fu mu nekk nii ci benn salle bu nekk foofu ci tribunalu ndakaaru mu am nag benn médecin bu ñëw rek di saytu euh, seen wérgu yaram moom nag ngeen gis ci nataal yooyu